jamono bi tolluwaay bi jéggi na dayoo nappakat yi nekk ci gox yeex gox-goxaat yi ci biir Sénégal dañoo am njàq ci nag li nga xam ne moom moo di pélagique yi maanaam jën yu sew yi gannaaw ba nga xamee ne ñu ngi koy tibb saasu ne ak nappin bu ñaaw lu ni mel seetlu ne dañu siy sax defar farine de poisson ngir mën ko dundale yeneen i mala te lu ni mel day tax mu gàllagoose seetlu bi di bu Moussa Mbeng secrétaire exécutif

farine de poisson bu fekkee dang koy def juromi kilo jën yu toy ngay jël petit pélagique pour am benn kilo farine. nguurug Sénégal nak lañu ñu baramu baaraamu ci nak mbir mi bu démé ba jéggi dayo tollu fi Mamadou Diop Thioune bok ci GIE interprofessionnel de pêche joxoñ baramu tuuma kilifa yi yomb jigéen ak xalé yu ndaw am ca mbay ma amaale ci géej di dundee li ñu moom waaye bu ñu leen di jox këyit ca jën du ministère de la pêche nag ñeneen a koy bindee jox leen ko ministère de la pêche bi nga xam ne moo yor napp gi xamul la ca biir lan la ñu ngay lor mool ma lor askanu géej loraale ñi nga xam ne ñoo ciy dund. lu ci ëpp licence de pêche yi ak yu ni mel ba tax gaa ñi di tibb suñu ay jën rek di yóbbu bu ñu xaymaa nag téeméer boo jël juróom-ñett fukk yi ci wàllu xeetu jën wi ñuy jëriñoo ci réew mi. pélagique boobe moo ko lal mu mel ni jamono bi soxla na ku ko aar ci tefeseek waaxu Sénégal ba noppi nag mën kaa bàyyi muy noppaluku ndax ñu mën a jur yeneen xeetu jën moo tax pas ak ñi mu ci lëkkalool jamono bii nag xar ci tànk tubéyam yee ci ñépp rawatina nag ñépp ñi yëngu ci wàllu napp jiital ci nguur gi ngir ay matuwaay